Bonjour Hein, dans votre acte du jour hein, de 8 octobre 2024 suñ fa jógee dañuy dem seete ji patron contrat di Abdoulaye Silla, ginnaw nak biñ ko accusé mu daal di déposé de tollu 2 millions d'euros ci profilu ben société privée Abdoulaye Silla, patron et mu daal n'a porter plainte contre X jëmale ko dal ci faux et usage en faux en écriture privée de banque mom midi Abdoulaye Silla, du homme d'affaires qui nak bi nga xamante dafa décidé daal di ben une plainte contre X qui bi nga xamante lepp lu mu di moy faux et usage de faux en écriture privée de banque en effet muy occasion bo xamanteni ci audition bi nga xamanteni daté le 3 octobre 2024 mom Abdoulaye Sylla dañ ko informé que ben ci diggante face à face am ak ñi ko doon enquête ay transactions yo xamanteni mom def nako ci ben société au profil muy doon SCI bu appartenir à qui, nga xamanteni moy Mambay Niang ginnaw lool nak mom Abdoulaye Sylla néna pour la première opération bi remonté wu le 31 décembre 2018 mu jéemale ko ci ben dépôt bo xamanteni 2 millions d'euros la ci faveur société bi nga xamanteni dañ ko tuddee STI Union en tout cas mu don ben compte bo xamanteni dañ ko domicilier jëmale ko dal ci lépp lo xamanteni dal mo nek nekk foofa ca Paris mom gis na ni que dal bés bobu lañ ko ko informé jëmale ko dal ci ben virement bancaire de 500 000 euros bi mu effectué aussi par société Ecotra jëmale ko dal ci profilu même société boobu jëmale ko dal ci défense mom Abdoulaye Sylla déclaré na que lépp lo xamanteni transaction la donne lo xamanteni lu faux la ba noppi mu daldi di manifester wu yokk ci lepp lo xamanteni mom musul rendre dem foofa ci France durant période bien nga xamante ni visé la le coup bu impossible de ko daal ci def lépp loo xamante ni tey. de di en faveur ak une société york ont ni di Abdoulaye silla les plumes mu bëgg sur pied maanaam mooy teg tànkam foofa ci France xawma ma kañ la ko gëj def suñu sukkandikoo ci li nag nga xamanteni manam moy contam xamna ni que dal depuis 2013 tegul tankam fofu nga xamanteni moy France alors que liñ ko wax def na ko c'est en 2018 mu don ben compte bo xamanteni gravité bi ay fay la dafa relever ben faux intellectuel en écriture privée mom Abdoulaye Sylla dafa décider dal di déposer li di plainte contre X ak li nga xamanteni moy faux et usage pour en écriture privé de banque muy plainte bobu nga xamante dal Abdoulaye Sylla compté nako ko déposé jëmale ko dal ci faux en écriture bi nga xamante ni jagleel nañ ko société bobu ci xaliss bu mu déposé ci ben compte bu ñu tuddé SCI ñaw ñi japp ni ko dal mambay ñamo ko mom muy virement 500 cent euros boo xamante ni ngi ko défé fofu ci ben banque bu Paris en 2018 alors que mom nee na 2013 batay ji tégul tankam fofu foofu nga xamante ni mooy France <laughs>